salaamaaleykum suñu mbokk internet yi suivre Galaye Talibé Bamba tey ñu ngi fii ci intervin bu ñu waxee intervin xel dem ci benn ndaw loo xamante ne ni bi wane boppam jotee da ko wane bi jëf jotee ci dëkkam dafa jëf waaye ñu xamee woon ko ci sport bu ñuy wax làmb dem ba ci biir mu doxee benn tur boo xam dañu ne patriote ñu ne kan la ñu ne Tapha mbër bu ñu ne Tapha Mbeur ñu wax ci ay slogan am mën a discours am ci waxtaanam ba signature am ñu bari dañ ko daan yàqamti wala face à face am wala open press am tey Tapha Mbeur dem ba mu yàgg ñu gis ni benn jeune la bu doon patriote di xeexal dëkkam carrière am xawoon tagga témbe waaye mel na ni tey la mu doon daw wala la mu doon yuuxu ndam xeeñ na ca ñu bàyyi ko mu nuyoo ñu waxtaan feggoo ci ak El suma frère suma xarit ak sama caméraman yi ñaawul yi Moustapha ñu ngi lay nuyu. waaw ginnaaw baatu onze billahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim ginnaaw ba ñu sante yàlla di julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur bu baax di nuyu waa parcelle yëpp 1 ba 26 bàyyiwuñu kenn waa Grand Médine waa Cambérène waa Nations Unies euh, Cité Fadia ba Golf xam nga ba noor Foire ñëpp bàyyiwuñu fépp foo xam te ni ku ñuy bëggee wala ku ñu sopp mu ngi fa rek ak képp ku ñuy seetaan rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaaraat bu baax di jox sa wàcc waaye di leen nuyu yéen ñi nga xam ne tamit yéen a ñëw seet suñu waaw ñu ak yéen démb la ba tey waaw di kontaanaat bu baax baax dafa man ti may question bi may njëkk a ñëw ak yow mooy jaayante bi xëy rek patriote bi wuy si la donte amoon nga tur ci sport bi nga nekkoon waaye dafa jékki-jékki Tapha Doon patriote ñëpp di ko bëggee sañ-sañ boobu coono bi méttit bi doon tey nit ñi ñi nga doon yërëm mais tey loolu noo ko daan dundee ba mbégte bi yegsi waaw maanaam tey loo gis ci àdduna rek nit njàmbaaram balaa muy feeñ faaw am li koy génnee ñëw euh, parce que tey boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax bi muy xare ji jàmbaar yee doon ànd ak moom am na ñoo xamante ni nee nañ la daw ci xare sax moo gën a bakkaar yi gën a mag ci àdduna dem xare daw ci la bokk te man ku xam sama turandoo ku xam fi ma bokk man Saalum Saalum laa pire te Saalum Saalum mukk ci ci ci njàmbaar rek lañ ko mës a xam ci gor parce que tey euh, am na jamono xaalis yu bëri ñi ngi génn pour ñoo xam te ne dañ lay jaayloo sa ngor mais boo nekkee njàmbaar nekk bañkat ba pare nga dëkk ci baale bi gis say moroom yu bëri ñu ngi fi di souffrir di sonn yow amoo xaalis boo leen jox mais am nga loo leen xeexalee muy sa kàddu nga gis nit koo xamante ne tey muy président Ousmane Sonko nga jàpp ni kii bu yonent bi wàccoon doon xare si man damaa war a ànd ak moom xeex ji mhm. bu dee julit laa nga gis kii taxaw ne dafa war a xeexal réew mi pour réew mi jugee fi mu ne dem feneen mhm. boo àndul ak moom yow doo gor moo tax ma jàpp ni lii nii mission la mhm. sam papa la ma ko waxoon li ma waxoon ñëpp ñi nga xam ne dañoo ñëw pour jéem la décourager la wala jéem la am lu ñu dugal sa bopp bi man leen ñun ci mission lañu nekk te ci àdduna bi ñu ñëw ñëw ñu fi pour nekk téléspectateur dañ fay ñëw pour doon acteur contribuer ngir ëllëg ñu doon ay monument doon ay référence suba ku ñu xool ne kii nii kat ba dëkkam soxlaa dafa taxaw taxaw xeex faay tingal dëkkam parce que loolu lañ fi am àdduna ku nekk da ñëw fii pour liggéey te liggéey jaamu yàlla bo bëgg sa réew da cee bokk da ngay dégg ñu naan la œuvrer pour Dieu à travers les hommes tey am na askan bi ñu nga xam ne amuñu kàddu ñii ñuy dóor ay balu fetal ñii ñuy rey ñii bu ñu feebaree du ñu faju ñii bu ñu xiifee du ñu lekk yow nga war a mun a kaas loolu xeex ko ba loolu jóge fi nga mën ko defoo ko toog fi nga toog yow loolu danga koy layoog suñu borom moo tax ñu jàpp ni lii ñu def nii suñu warugar la lii moo nu war moo tax ñu taxawee noonu. ñu ciy sant yàlla nag parce que am nañ ci satisfaction totale. metti woon na wéetoon nañ ci. bu mel nan bu mel nan. waaw satisfaction totale ci lépp mooy parce que dañ ci bëggoon projet bii ñu jàpp ni moo war a defar réew mi mhm. dañ koy xeexal ba projet bi yéeg. projet bii du nit lañ topp mais projet bi lañ topp. wane ni projet bi lañ topp moo tax bi ñu gàllankooree Ousmane Sonko ñu teg lo projet bi ci loxol Diomaye Bassirou Diomaye Faye mhm. ñu jógaat épaulé Bassirou Diomaye Faye pour projet bi na dugg pare. bi ñu gisee ne projet bi day tey day dugg pale dañoo sant yàlla tey am na ñu nga xamante ne dañ la doon contre sax ñu ngi lay woo di la féliciter kon loolu satisfaction doon contre tey ñu ngi lay woo di la ci ban acte yooyu leen ci dara yéen ñi ngeen taxaw nii da ngeen di maam da ngeen di tardel seen bopp tàkk tàkk sondeel la ko waaw da ngeen di tardel seen bopp maam pour jéem a dox sa maayin waaw yi ni taxaw la sax naa la ki ngeen am na rebelle la waaw yéen da ngeen di tardé seen bopp mais vous n'avez rien compris ba ci démb taxaw na fii ne bi du ngeen ci toog ma ne ko dinaa xam ba xam chaise bi bu dee vote moo fay teg nit wala doole. <laughs> tegoon loolu. parce que dama gëm ni ñun lépp lu ñu waroon ci sensibiliser lépp lu ñu waroon ci taal xelu ndaw ñi nga xamante ni dañ. vote da daan jot booy ne ci terrain yi di fubal. waaw vote da daan jot booy di dox yeneen mission. mais tey bi ma wàccee aéroport bi ñu nee suba la élection dama ne booy ngir yàlla war suuli li ma doon wax boobu ba tey li ma doon fighting boob ba tey le moment est venu jël leen carte yi ñu dem voté. parce que taux de participation bi su kawewee mhm. mënatoo ko sàcc nit ki bu la rawee ay junni junni voix mhm. <laughs> mënoo ko sàcc mais su ma sàcc cent franc yomb na waaye sàcc junni yomb cent franc yomb na mais boo bëggee sàcc cinquante mille wala un million dañ lay jàpp <laughs> dañ lay jàpp ñun daa bëri da dafa bëri <laughs> xam nga tey ma teg sama cent franc nga ne ko roppet dama naan voilà lii du dara xamal la mën naa la koo may ndax li nga ciy jënd mënu romb euh, euh, ay singom wala bonbon comprendre nga. da ngaa jàpp sàcc parce que sàcc la ñu bëggoon def. ñu wan leen ne ñun danoo pare si côté yëpp. ñun sensibilisation bi bi ñu bi ñu xeexee li ñu xeex ci auparavant. fin bi lan la woon voté. parce que nit boo xeexee. dem manifesté dem euh, taal ay pneu. naan lacrymogène. ñu jàpp la tëj. sonal la. nga dese lu dul. yooyu ay premier act la. dernier acte bi mooy lan. yow yaa may teg lii yëpp. jógeel fii. jugal jugeel fii loolu su demee ba des ma manière jugeel fii jugeel fii mooy génne sa kart gi nga jàpp ni moo war a defar sa réew nga rocc ko dugal ci enveloppe bi ki nga xam ni moom moo lay souffrir loo di la sonal nga dugal ko ci mbalit bi ne ko jugeel fii yaa ngi dégg. Uh-huh. barki alxuraani karim maam tey nekk acte moom xam yow yaa ngi may faire souffrir te yow yaa soxla sama voix yow yaa ngi may teg ay coono nga ne yow après naa la voteel uh-huh. non non non non ma ne booy képp ku tayal a jug dem vote ji sa avenir sa tekki nga tayalee. nit daje nag man benn booy ne ma tafaa barki alxuraani karim dama déglu sa affaire bi ma ne man huit heures laay jug voté ji nit ne ma tafaa man li nga li maam confiance ak courage bi nga defaat si man maam yow mënoo ko xam mënu ma la fay ay nit dañ ma si gërëm gërëm boo xam ne parce que dañ leen dañoo defoon si ñoom benn complexe benn ma quoi waaw benn tëju waaw complexe loo leen ma bare faible loo leen ba booy gëmatuñ sax seen bopp mhm. yaa ngi dégg léegi nag man ma ne man am naa rôle rôle bi mooy man maag booy ñoo bokk génération maa bokk maag booy ay moroom lañ pour pourquoi Tafa dem nekk Maroc élection jot mu jël xaalisam fay wàccee biem pour voter si man ma nekk fii sama wetu kër école bi nekk nii sama wet ma war a jug dem foto ji may toog non loolu du ko def. léegi Tafa benn question bi xam naa du ñàkk après El am lu mu participer mais Tafa don lutteur en activité jékki-jékki jël sa ngemb woon arène nationale ginnaaw ngemb janook àdduna. Moustapha Moustapha loolu noo ko war a dundee. mais mais mais mais galaay man damay bëri ji ay milliers de personnes di ma topp. te saa bëree booy xaar xam nañ jour bi sa CNG di la jox sa reliquat. ku si nekk mi ngi xaar loo ko may. Mhm. ñooñu noonu bu ñu amalee seen bopp ñun ñëpp du ñu am tekki. pourquoi man ma topp ne man naa concentré wu si làmb man kese naa am. ma ne non non non non boo yii tax ñun ñu ñuy fay. Mhm. te ñoom bu ñëwul stade kenn duñu fay léegi lan mooy ñun lan mooy suñu rôle ci booy yooyu duñ taxaw défendre leen uh-huh. taxaw kaasal leen mm-hmm. làmb dafa nekk benn affaire boo xam te ne divertissement la mm-hmm. booy yi dañoo war a xëy mm-hmm. dem joobi buñ joobi jee dimanche jot ñu am seen xaalis seen poos ñëw dagg ticket seetaan làmb làmb pour benn jour la dimanche mu jeex ku nekk xëy dem joobi loolu su amul woo ñëw làmb sax uh-huh. est-ce que man nag fi may xalaatee ak gars yi c'est pas la même chose. loolu moo tax man ma ne man moment bi fekk bokkuma ci xeex bi ba lépp jaaraat yoon. Mhm. dootuma xool sama bopp man kese. moo tax mu jaraloon ma ma bàyyi lépp. sacrifice bu nekk. Mhm. ma def ko tey am naa ci satisfaction. mais mais mais tekki sa ngemb jano àdduna ak takk sa ngemb jëm arène nationale bu gën a yomb. jëm arène nationale moo gën a yomb. parce que euh, yow xam nga ne lii ñu nekkoon. Mhm. ku ci nekkul lekk moo moo ci moo ci mënul xam lan la mais képp ku ci nekk mën na laa wax lan lañ ci dund. parce que yow jàpp nañ ci booy yu nga xamante ni man ak ñoom ñoo doon teg. mais jàpp bi mooy gis nañ ni nii maanaam booy dafay ànd ak wala day wàcc sur le terrain mhm. wala soupçonné nañ la si dara rek dañ lay jàpp yóbbu parce que ñu koy jàpp ñu ngi dajeeg moom mi ngi xaw ma fan côté gàllem waa bi muy jéggi tali bi rek waa ji kooku ko booy kafe laa bëgg nañ demaale mu ne ko grand looy def nii bàyyi mu ne ko booy c'est la gendarmerie da dem is dem na tëdd huit mois. is génne waat nañ ko mais mais ban gàllaaj la amoon ba jàpp yooyu yëpp mu ci rëcc. <laughs> non mais gis nga gis nga gis nga yàlla yàlla ku mu tudd ci yow rek moo ci parce que man taxaw naa mission boo xamante ni am na ñoo xam ne waxuñu sax li ma doon wax am ñoo xam ne defuñu sax li ma doon def te dugg nañ kaso mais man dama doon xeexee techniquement parce que man booy man guddi foo ma fekk maa ngi déglu président Ousmane Sonko la lay xeex bi xeexu xel la man jàpp naa ne am na rôle boo xam te ne dama ko amal patriote yi du ma saraxe sama bopp ñu may jàpp tëj saa bu tentative waree am damay génn Ndakaaru eh. billaahi wallaahi région yu bëri Pastef bii nii ak ak nu mu ak projet bi moo tax ma xam yenn région yi Sénégal. ci làqatu wala. waaw ci daw ba affaire yi sedd ma ñëwaat ci effacé wu ba affaire sedd ma ñëwaat. ci effacé maanaam di fexe di éloigner di écarter danger bi. ok kon yow da nga doon exilé wu ci bëtu nit ñi ko da nga doon sànni ba gars yi gis ñi xeer bi dal na nga daw làq. ma effacé wu waat parce que man dañ ma soxla. yaa am na nit yu bëri boo xam ne mbër. ak demee xel mbër yow dañ la soxla parce que am na ku si nekk role bi nga am rôle bi Ousmane Sonko yor du moom la Tafa Mbër yor Tafa Mbër rôle bi mu yor du moom la Guy Marius yor Guy Marius Sagna rôle bi mu yor nekkul moom la exemple benn ku ma ko mën a tuddee Mollah Morgun yor wala keneen ak keneen ku si nekk am na looy looy parce que état bi dem na ba jaral leen ñuy fay ay ay ay ay ay ay influenceur di jox xaalis pour lan ñuy fen pour ñuy yàq ay der pour ñuy yàq deru Ousmane Sonko waaw li sëñ li euh, sëñ Cheikh Tidiane si almaktum waxoon mhm. mu ne sëñ Babacar a ko war xaw ma kan ma ko wax mu ne li nga nekk mhm. lépp lu mu jaral keneen pour mu yàqu mhm. na la jaral lu ko raw pour mu baax foofu laa taxawoon ok ok ginnaaw bi loolu lépp sottee ba tey ñu ne Moustapha Mbeur dellusiwaat na donte ñëw na wax nga waxi influenceur tey boo gisee ñu ne influenceur ñenn ñi doon wax naan xale yi amuñu carte ñu gis voté bii ni xale yi génneeg masse wane ni xale yi màgg nañu noo ko dundee. foofu ba ma déggee loolu ay réel lañ may def parce que ñun ñu dekk si baal bi dëkk si Sénégal bi ci suuf di xam booy yi booy yor seen i man bi may voté euh, ci sama bureau benn booy boo xam te ni musuma gëm ni sax ay affaire vote mi ngi si boppam benn booy jaay perek yoo xam mooy ñi nga xam bu ñu leen gisee du leen respecté jàpp ne ñii ay booy wayaa wayaa yooyu lañ. booy jaay perek boo naan ma mbër bi ma bi ma génnee sama enveloppe dafa desee dugg bu baax moom moo ne ma mbër enveloppe bi dugalaat ko bu baax baraaye ko quoi waaw maanaam bi ñuy baraaye si biir <laughs> maanaam dama baraaye benn côté bi duggul mu ne ma mbër baraaye ko bu baax pour wan la motivation ak détermination bi booy am ma ne leen ñii dañoo xamul moo tax bu ñu ñëwee ñi leen topp ñëpp amuñu carte d'identité mhm. maanaam moo tax sama grand bi bi mu ne ma sées bi du ngeen ci toog mhm. ma ne ko tey laay xam ba xam vote moo fiy teg nit wala doole. ci fan nga ko parce que booy dañoo génn voté en taux de participation bi kawee te su li ma la waxoon sànq sàcc cent franc yomb na mais sàcc junni yombul wala un million. léegi comme message bi yaa ko waxoon yow laa koy wax nga wax ko sénégalais waxaale ko président Bassirou Diomaye nga ne parcelle unité 20 teg ko ci day. mën na ko day tali unité 11 ak unité 13 <laughs> day taa tali unité 15 ak unité 19 day taa tali une tali hôpital Maabdou day taa. waaw euh, tali 24 25 day taa. waaw monument unité 24 day taa. waaw nañu jàppale def Sénégal. comme Émirats na def Sénégal comme États-Unis mën na nekk on peut le faire ressource yaa ngi fi uh-huh. nañu récupérer suñu maaro bi delloowaat ko lébu yi nappkat yi na leen delloowaat suñu géej gi ñoo mareyeur yi suuf si nga xamante ne baykat yi nangu nañ ko si ñoom jaay ko tubaab bi nañ ko nanguwaat delloowaat ko baykat yi uh-huh. yaa ngi dégg élèves yi nañ leen jàppale étudiants yi ay ordinateurs yu jànge sax amuñu ko étudiants yi ñoo war a remplacer beneen Bassirou Diomaye fay ñoo war a remplacer beneen Ousmane Sonko. ñoo war a remplacer beneen Guy Marius Sagna nañ leen jox lu ñu moom ku ci nekk facteur mu ne nanga leen jox lu ñu moom tali yi ñu defar ko ba Sénégal lépp nekk tali ñu fàtte suuf yaa ngi dégg njàng mi jaar yoon faju bi waratuñu ñëw di indi urgence hôpital ñu naan la demal daja ticket c'est pas normal nañ jàppale faj mi mhm. li daan am parce que da daan gis ministre de la santé doomam du fajoo Sénégal da nga naan gis ministre de l'éducation doomam du jàngee Sénégal na ministre de l'éducation doomam di fi jàngee ndax bu ah. jàng mi baaxee mu jàngee fi ministre de la santé na doomam di fajoo fii mhm. ndax bu faju mi baaxee doomam fajoo fi yaa ngi dégg mhm. li ñuy xeex loolu la te gëm nañ ñu ñoom ñoo ko mën moo tax ñu appuyer leen toog seen i tànk ba pare dooleel leen lu ñu si fekk ñu jël te ndam moo ñu si fekk ñu baal ñu ci kàddu bi quoi buñ musaana wax mbër dof la tey ngay génnee message yi en tant que lutteur buy takk ngem waaw parce que tey mooy li ma la wax rek ku ci nekk njàmbaaram ak xelam ak xam balaa muy am faw am circonstance bu am mu génn parce que li tubaab naan chaque chose à son temps tey Sénégal bi mu soxlaa dinañ ne ah naka diw parce que gor ak jàmbaar ak xam ak xel dañ ko soxla ci yenn moment yi parce que Sénégal mënta soxla nga naan ngay teg yëfu dof yëfu dof weesuwul askan wi la def li nga doon soxla ñu leen di rey di leen souffrir loo nga naan ñii sama yoon nekku si ñoom parce que ñoom gëmuñu dara lu ñuy gëmee dara te amuñu kenn ku leen taxaw balaa ngaa gëm dara gi sentir ni saa bu méttee nga gis ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom kàddu yi ñooy borom doole yi ñi ngi sa wet parce que Sénégal ñëpp yemuñu doole mhm. man loolu laa gëm moo tax ñun ay nit njaay lañ mhm. ay boromi xel lañ mhm. néew doole sax moo ñu dugal si làmb mais ñun man bi may jàng barki Seydina Mohamed ñi ma bokkaloon classe ñu may bàyyi ma fenn du ma génn cinq premier du ma génn dix premier bi may def CI ba bi may def CM2 su ma defee euh, composition monsieur Dieye moo ma jàngal CM2 saa ma defee composition da ngay dégg élèves yi di daw tafaa mooy jël p wallahi al azim mais après dem naa ba année scolaire su su su su waree tijji sama baaba daf may xaarloo pour ñu jëndal sama rakk yi fourniture wala ñu inscrire leen man dernier moment ma ne lii mënatul a ne man damay uti ñan jàppaleem xale yi waaw na booy jàng man man bi ma waree def troisième année bi ma waree def BFEM laa bàyyi jàng kon laaloo bac quoi aw ma sax BFEM parce que année boobu noonu jànguma ko ci laa ne voilà bàyyi ma dem uti beneen yoon. parce que tamit sama tànk yi bëri nañ. ak man munu nekk man charge laa quoi man dama jàppee sama bopp ma maa charge mais Sénégal bu jaaroon fi mu war a am na xëy <laughs> na am na ñoo yaa ngi leen gis yenn job duñ nekk bàyyi Sénégal étudiants yi léegi ay vente en ligne la ñuy def. waaw bari na. étudiants waaw bari na. bàyyi dafa métti. Mhm. Bassirou Diomaye Faye na charge mais gëm naa ne charge bi yàlla da koy woyofal. ok bàyyi bi bi tendance yi commencé wàcc Sénégal da doon wis. waaw waaw non dama ne yow bi nga déggee tendance. yow en tant que patriote. Tafa fi nga toog nan nga ko doon dundee. bàyyi mënatuma toog mënatuma taxaw. ndax lan parce que dafa métti woon te bàyyi man dama gëmoon ni projet bi day dugg palais. nga gis ni jéng bi daal mu ngi dagg. non li may wax sénégalais Sénégal génn na kaso. ah fu ñu nekkoon le Sénégal est libre. léegi nag dañuy ibbi suñu bët xippi xool xool fi ñuy jaar dem fa. xam nga kaso bu ñu la ci tëjee ba tëj la. Uh-huh. da ngay génnaat nga xoolaat. la moo tax nga bari moo tax nga bari woon i pax boo waxee vingt làqatoo ji Saalum boo waxee trois làqatoo ji. Touba ñeneen ay ay ay ay Joal. mais tamit yan dëkk nga demoon yow mun a lim. sànq Kader Kader Ndiaye ndeysaan sama doomu ndey maa ngi ànd man ak moom ak sama jabar ñoo ànd ñuy dem Vélingara. Uh-huh. Uh-huh. si biis bi donc ñu ngi def nii di nelaw mu ma koy filmé naan ma mbër yaa ngi fàttaliku lii ak bi ñu demee Vélingara am na beneen ville bu ñu doon beneen village bu ñu doon dem bi ñu yéegee si Jakarta yi ma koy filmer boobu am na journaliste bu naan bu ma envoyé campagne yi doon da nga doon làqatu dama doon dem toog yi parce que boobu maag sookaana sama grand ndeysaan maa ngi koy nuyu au passage ngi États-Unis moom it effacé wu na métti woon ne ma mbër bu la bu ma sañoon tey doo fi fanaan moo woo sama benn sama doomu ndey xurey si caam mu boole maag ceer ceer moo ma jël si fii yóbbu ma mbuur ba pare ceer mhm. ah, moomu après loolu par étape doon daggee yoon yi non man du ma tëb rek stratégie sax man dëgg nga non ñun ay nante lañ <laughs> ñun man bu ma waree jëm fii damay jëm fii ceene xëy jóg jëmaat fële. ok ceer moomu bi ma yóbbee Mbour teguñu si dara si lan ko jàpp. ceer mi la yóbbu Mbour. wallaahi al azim <laughs> ba affaire bi yàlla rek a xam mais Ousmane Sonko da ngay toogoon ñi nga xamante ni ñoom Ousmane Sonko ñoo sos parti bi. li la wax ne la Ousmane Sonko bi ñuy commencé projet bi di tàmbali. message am man message boobu bokk na ci li ma gën a réconforté. mu ne leen projet bii ak ci li ñu nekk. képp ku parewul pour sa liggéey yàqu ci mhm. képp ku parewul pour tëdd ci kaso bàyyil mais moment boobu ñu bëri dañoo àccu jàmbaar yi dañoo ànd ak moom te man loolu dem naa ba ci biir xeex bi ma koy doog a xam booy waxtaan ak ku si mel ni ñoom Baro booy waxtaan ak ku si mel ni ñoom honorable député Samba Dang mhm. booy waxtaan ak ku si mel ni ñoom euh, Fatima Meng da ngay xam ni lii nii njàmbaar moo ci ne parce que ñu kenn mayuñu kenn juróomi dërëm mais gëm-gëm jàpp ne Sénégal gii ñu nekk di dem si yeneen dëkk bi ma jógee Maroc Maroc lekk fa gën a yomb ak faju Maroc gi wallahi azim képp ku nekk Maroc mun na lekk ak faju moo fa gën a yomb gis nga fii bi ñu ñibbisee ñang baala mu ne ku koy invité euh, ndogu bu ko invité ginaar ginaar dan koy lakk ba pare maanaam bu si xaalisu Maroc bu dee Sénégal du romb mille cinq cent francs bu ñu lakk defar ko ak yeeg messé messé kon de ku fa yóbbu ku fa yóbboon si seen fruits yi comme c'est pas possible. meew bi. non mais xoolal mësambal gi. billahi wallahi taalaay loolu boo fa demee gis ko boo ñëwee sa Sénégal bii da ngay xaru da nga naan lii c'est pas normal. te Casablanca rek ñun ñoo ëpp Sénégal ci population. Maroc da ngay jugee dëkk maanaam war a jógee Sénégal dem ba Mali te yaa ngi biir Maroc te boo demee dëkk boobu ñu ne la foofu mooy village bi moo dàq suñu almadi bi ñu ne la fii mooy mooy village bi fii fii mooy àll fii mooy àll yi Maroc yi wallahi azim moo dàq suñu almadi bi loolu bu dee jàmbaar nga di gor uh-huh. ay boo ñibbee sa dëkk gis ñi ko yor da nga naan ñii dañ fiy jóg moo tax bi ma wàccee aéroport ñu ne ma looy wax ay Amadou ay Macky Sall ma ne leen ñooñu dañ leen a conjugué au passé maanaam depuis Senghor ba ñoom uh-huh. c'est au passé léegi bu bees la nouvelle ère Sénégal moo soxla Sénégal bu bees ay doomi dëkk bi ñu gëm seen bopp ah, wallahi azim Elas <laughs> Kébé. Tafa maa ngi lay di la jaar bu baax sama première question ak yow lenn la parce que ñu bëri dañu koy faral di wax gën a jege gën a yey pourquoi bi président Macky Sall defee choix bi Amadou Ba dafa xar tànk tubéyam ne kooku du dem parce que gis nañ ni euh, gis nañ ni tey influenceurs yi sànq ni ñu ko waxee ku ci mel ni mbëri waykat yi fecckat yi ñoom ñëpp dañoo defoon masse de critiquer ki nga xamante ni mooy président Bassirou Diomaye Faye ce choix. nga bañ soit président bañ ci Amadou Ba ne du dem te du génne fan nga tegoon ak gis-gis bi lan la bi ñëpp bi ñu njëkkee def choix bi sama première vidéo patriote yaa ngi may seetaan na ñëpp duñu ma bàyyi ma fen lan leen njëkk a wax ku mënoo gañe parcelle mënoo gañe Sénégal sama vidéo boobu ñu bëri seetaan nañu ko benn vidéo bu ndaw sama jabar moo ma ko jëloon xam la moo tax ma teg ko foofu mhm. Amadou Ba nekk na parcelle nekk fi ministre des finance ñaata at mhm. nekk fi premier ministre ñaata at mhm. munoo génnee benn réalisation ba fi may def vidéo naan la fii day taa fii day nangam marché Dior unité 13 maanaam amul benn réalisation yow yaa ngi mel ni koo xam ni yow comme man benn Elas Kébé wala benn galaay bu ne biir parcelle yoroo benn fonction te yow nga yor premier ministre yow yaa jiite gouvernement bi benn deuxièmement yow bi ñuy jël xale yi di leen dóor ay balu fetal yow yaay suñu premier ministre bi nga xamante ne gars yi sonn nañ fii bay jël gaal gi di dee si géej gi yow yaay suñu premier ministre man sama rakk jam nañ ko fi jami wér bi ñu demee hôpital dañ ne ma demal dagg ticket te urgence la booy bi dafa doon jéem a yóbbu boppam hôpital saña na ba léegi mu perte sang yëpp kooku prix affaire mooy da a jël dem faj ko pare dooga la jënd kuy ndayam wala kuy bàyyam sama yaay indi naa ko hôpital bi ma boobu mooy si problème mu coow yi waxoon naa ko sama benn vidéo boobu affaire yi métti na amatuma dërëm sama xarit yi sax ñoo may jàppale di ma may moo ni sama yaay bi mu feebaree bi ma ñëwee ba hôpital perfusion yi sama xarit laa woo moo ko fay amadu Ba mooy suñu premier ministre. jàng mi tujjil nañu làmb ji tëj université Amadou Ba mooy premier ministre léegi kooku nee na daa bëgg a def continuité wu Macky Sall loolu noonu fi amoon. moom lay yeggali. bu dee gor laa bu dee jàmbaar laa dama naan la yow mii bëgguñu la du dëgg doo ko fi defee parce que loolu noonu du dëgg quoi. képp ku ne ko woon da ko fee war a def daa sim sa cere. dañ ko wax te dee. influenceurs yi nga doon dégg nga xamante ne à chaque fois ñoom ñu ngi taxaw ne Amadou Ba mooy le bon choix di critiquer ki nga xamante ne mooy Bassirou Diomaye Faye euh, gis nañ làmb ji waykat yeeg fecckat beeg waaw ñoom daal ñoom lañu gis ni ñoo ëppoon suñu toppoon Amadou Ba sa gis-gis. waaw parce que mooy li ma wax sànq rek. toog dox bi wala. El <laughs> wax na wax ji de. doole moo mën dëgg mais dëgg mooy mujj. commencement bi ñoom doole lañ àndal jàppar ne da ngay gis influenceur bu taxaw naan waaw man di sama gis-gis di mel ni waxañ taxaw naan la ay xam nga man dama bëgg dama li ma gis mooy Amadou Ba teew boo ko ne woon Amadou Ba lan nga gis ci moom la ban lan la liggéeyal Sénégal mënuloo ko wax Amadou Ba on a beaucoup de respect pour lui c'est un grand monsieur waxuma ko pour dara mais gisuma liggéeyam damaa gis ni moom moom topp ci ginnaaw Macky Sall sax moo tax Macky Sall fal dañoo bëgg nit ku gëm boppam koo xamante ne day wax non o moment de dire su ñu bëggee jaay doole mu ne déedéet mais système mu mag système mu ñoom ñooñu tubaab bi lañuy liggéeyal. influenceurs yi nga xam te ne dañ ay moom lañ topp loolu ñoom la concerné mais ñun ñi nga xam ne ay góor lañ ay jàmbaar lañ ànd ak dëgg di ko xeex yàlla may nañu kàttan boo xoolee nag ñu ëppoon baat ñoo xam ne ñoo ñu ëpp daraja ëpp ñu alal dañoo ànd ak moom mais gis nga boo ànd ak dëgg sama kàddu yàlla moo ko doon yëkkati ba muy sut yenn kàddu yi du sama njàmbaar de parce que yàlla moo ànd ak dëgg dëgg boo ci nekkee yàlla moo lay yokk doole. dëgg dafa neex. Mhm. mais yow tey boo ànd ak ñoom Amadou Ba ak ñii parce que luñ la gis naa benn vidéo Amadou Ba mu naan ay si on gagne vous avez vos maisons. ça que euh, am na ñoo xam te ne ay digg lañ leen def. dig waa séddoo. waaw sunu sunu sunu sunu sunu sunu sunu dëkk bi ah. lañ séddoo woon ba pare man dama koy jàppale maa ngi xaar lii am na yoo xam ne ñu ngi xaar lii ñii ñu ngi xaar ay kër ñii ñu ngi xaar leneen ak leneen ah. <laughs> ñun ñu ne leen sunu réew bi kenn du ko séddoo. li ñëpp bokk yéen ngeen dañ koy teg ci digg bi. ku nekk jël sa cër. sunu pétrole bi du ngeen ko jox tubaab bi. sunu géej gi da ngeen ciy génnee chinois sunu suuf si da koy delloo baykat yi. Uh-huh. sunu faju yi da ngeen fay da ngeen di subventionné faj bi faj bi jaar yoon. Uh-huh. médecins yi nga xam ne ñu ngi Europe. Uh-huh. ñu ñu ñu Bassirou Diomaye Faye je lui lance message. boroom xam-xam yi nga xamante ne ñu ngi ci diaspora bi parce que diaspora bi man dama leen di gërëm saa su nekk. ndax lan parce que dañoo am doole ci xeex bi. suñu suñu suñu président bi bi mu manqué les parrainages diaspora bi ñoo ko mottali diaspora bi tubaab yi seen hôpital yi gën a mag suñu doom yi suñu doomu sénégalais yi ñoo fa ne di liggéey seen jàngalekaay yu gën a mag suñu doomu dëkk bi ñoo fay jàngale mais suñu jàngalekat yi lañ fayul normalement ñu dem fee ñu leen di fay jox leen cër yi ñu war a jox ñu dem foofu liggéey mais na leen Bassirou récupérer président Ousmane Sonko récupérer suñu borom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi ci kaaw bi ñu ñëw liggéeyal seen réew ñoom ñëpp xeex nañ li ñu waroon xeex yàlla changé na système bi li des nag mooy maa ngi leen di tàllal maa leen tàllal samay loxo ñun li ñu mënoon yëpp def nañ ko xeex nañ fighting nañ léegi yéen ñi nga xam ne yàlla dénk na leen xam-xam yàlla dénk na leen maanaam daraja ngeen nekk ci Europe bi États-Unis bi Asie bi fépp fu ngeen mën a ne moment bi jot na ñëw leen ñu liggéey suñu réew. dafa ci xeex bi yan proposition nga gis yoo xamante ni tey leer na leen bu doon El mii tey waaw trahir na ma fi non mais <laughs> yow a partager ak sénégalais. non mais waxoon naa ko mooy Mollah Morgun bi muy wax gars yi chèque blanc bi ñu ma tegal. bi liñ ma njëkk a wax mooy ne. wallahi al azim bu amul yàlla naa yées si li yàlla bind. kon loolu nekkul lu Mollah créé. non non non non Mollah oto bi ñu ma jël see sax da koo ngi dégg maanaam ne ma. dangay ñëw nga ànd ak wax wala dafa am. non non non non xam nga Sénégal fii moo la wan ne ñi jaay seen ngor yëpp ni ko nit ñi xamee. moo tax gore dafa neex. man dama toog rek gis affaire bi commencé daw ma xam ne su ma jaayoon sama ngor noonu laay toogaatee ñu naan voilà xoolal fii la newoon di ratatati tey mi ngi nii jaay na ngoram nit ñëw na ne ma yow yéen a woo ñu tekki. li loolu. yow nooy gisee alal ba pare di ko fa bàyyi doo ko jël ñëw dem sa yoon wala nga dem États-Unis jàpp sa ñaambur waaye lu ne nit wax na ma ko man leen sama ngor moo ëpp alal jooju. te moment boobu damay toll foo xam ne sama yaay day jékki nga jël sa essence moto sa nga dem. barki alxuraani karim metti na si man ba ma yëg ko. mais damaa gën ni man waruma waruma waruma xaddi waruma nekk jàmm. te lii dafa war a jeex parce que su jeexee man ma ànd souffrir rek ndoo sama xarit yëpp moo a gënal man kese ma am te su ma amee du ma du bari parce que maa ngi ñu ma koy bokkaat. fat fat day jeex. moo tax dama jàpp ni souffrance bi na doon ñëpp wala am am bi doon ñëpp. Euh, ça passe ou ça casse. defar réew mi lañ bëgg. lan nga jàpp ni actuellement mooy priorité yi nga xamante ne moom la Sénégalais gën a soxla ci changement bi nga xamante ne président bi toog moom la war a changer les priorités sa gis-gis lan la. waaw no Sénégal lépp priorité les instant bi parce que Sénégal rien ne va mais damit dam damay ñaan patriotes yi bu ñu déglu ñi nga xamante ne ay manipulateurs lañ bëgg kut ko kut rek ñu teg pression jomaay que ni voilà mi ngi ni yéen a waxoon bu fi toogee rek suba ginnaaw suba jomaay war na liggéey fu war na liggéey Sokone war na liggéey Saloum war na liggéey Fatick war na liggéey Tamba war na liggéey Bakel parce que man chemin de la libération dem naa ci ay régions yoo nga xam ne ni c'est ma boobu mooy première fois ma dem fa da ngay naan lii est-ce que ci Sénégal la bokk dëkk yoo xamante ne ndox suñ ko buggee am ndox bu ñu naan da ngay si yàlla li ñu war a daw pour dem uti ndox néew doole gi ci kaw a kaw ba pare war a defar dakaar Ziguinchor soor mhm. Tamba non non non non du ci benn fan mais priorité yi ndànk par ndànk parce que dañoo changer système war a tegaat système. waaw dañoo war a régler dund gi. régler faju gi. xëy mi mhm. njàng mi. Mhm. napp gi. Mhm. mbay mi. dëkkuwaay yi. parce que Maroc da fa dem gis buur bi day defar ay ay ay dëkkuwaay. non jikko yi. sénégalais yëpp a baax sénégalais dañoo sonn. Galaye Galaye xam naa li ñu xawaan joti temps bëriwul waaye tamit aussi dañuy tënk rek waaye ci tënk yi ndax Tapha d'accord na li nga xamante ne président Macky Sall bi mu toogee loolu la njëkk taxawal ngir leeral xaalisu Sénégal fa la nekk bëgg nga créer yi taxawaat pour ñu leeral ñi nga xamante ni tey suñu milliards jàpp nañ ñi mi ngi seen dodd fii Sénégal dama ne la képp koo xam te ni da jël suñu alal di ko fooyee da nga koy tegaat ci suuf da koy tegaat ci ñi ko moom parce que yow kase moomoo ko. loi d'amnistie bi jàppoo ni. non gëmuñu yooyu. dañ koy vérifier parce que jaay doole bi fi am depuis cette année yii yëpp. du ay fayantoo nag. mais dafa am loo xam dafa metti waaw ñoom Jomaay ak président Ousmane Sonko dañ leen soxla justice bu jaar yoon. Mhm. dañ leen soxla lépp na jaar yoon. waxuñu nag jaay kenn doole. parce que jaay doole amul. mais lépp loo xam ne war nañ ko teg si yoon. non nañ ko teg si yoon ñoom ñub lañ leen toppee ah. toppee wuñ leen jantal toppee leen boo. toppewuñ leen ay xam-xam parce que ñi fi nekkoon am nañ xam-xam de mais dañoo jubul kon nag ñoom njub lañ leen toppee ak dëggu kon nag nañ bu ñu doxalee loolu Sénégal day neex parce que moom lañ leen toppee ba fii gëm naa ne li ci des moo gën a yomb li ñu romb parce que li ñu romb ay gàllankoor la léegi nag lépp a ngi seen loxo liggéey moo des. <laughs> léegi ban message ngay tàggoo. message bi may tàggoo mooy rek waxaat patriote yi bu leen déglu manipulateurs yi nga xam ni bëgg nañ ngeen teg pression ñii ñu denk seen réew. parce que réew du si benn fan lañ koy liggéey waaye bu nu récup defee li ñu war a def pétrole bi dina jaar yoon incha allah gaz bi dina jaar yoon phosphate bi dina jaar yoon or bi dina jaar yoon parce que France mii nga xam te ni moo fa ëpp moo fi ëpp or amul or fii la koy jëlee su lépp jaaree yoon dund dina yomb faju dina yomb suuf si dina ko dinañ def lépp tali dëkkuwaay sax dina yomb parce que Maroc wax naa la ko sànq buur bi day defar ay dëkkuwaay jox ko ñi nga xam ne mooy doomu Maroc yi ñi nga xam te ne ay jeunes mariés lañ ak yooyu nga koy fayee ni nga ko mënee. ba ba muy mat nga moom sa kër stabilité boobu ñii mën nañu ko mais ndànk ndànk maa ngi gërëmaat diaspora bi billaahi diaspora bi ay jàmbaar lañ waaye parce que ñun fii dañ fi xawoon wéet parce que quatre-vingt pour cent bi jàpp nañ leen tëj mhm. yeneen quatre-vingt pour cent bi yeneen gars yi nga leen di découragé loo mhm. mais diaspora bi ñoo amoon détermination boo xamante ni ñun ñii sax amuñu woon droit lâcher prise mhm. maa leen di gërëm di wax président Diomaye président Ousmane Sonko tendre leen la main borom xam-xam yi si bi ñu ñëw ànd ak liggéey ànd liggéey ñii ci hôpital yi ñii ci université yi ah ñii ci transport bi ñii ci tali yi da ngay gis booy boo xam te ne day def ay réalisation naa la Sénégal mënuñu ma jàppale Sénégal bëri na borom xam-xam de da gis ay booy yu defar ay climatiseur ay booy yu defar ay affaire mais ay oto Sénégal bëri na borom xam-xam moo tax ma ne la jikko yi ñu ko defar de dëkk bu stable dund yomb lépp yomb di nga gis ci nit lu la bett yow maanaam daal bu xiif bi raaree. xel yi stable lu ne mën naa xew. lu ne mën naa xew Sénégal dinañ dem ba tubaab yi ñooy immigré si fii incha allah. amiin waay te loolu la ñuy ñaan. dëkk ci dëkk bi tekki ci dëkk bi. incha allah waaw maay gërëmaan ñëpp. Uh-huh. di félicité waat ñëpp. Uh-huh. parce que fii victoire bi ku ne mën nga ci félicité sa bopp. parce que ku nekk amoon nga rôle. am na koo xamante ni sensibilisé na waa këram. Uh-huh. am na koo xam ne sensibilisé na waa koñam. am na koo xamante ni téye na ay carte d'identité waa këram ba parrainage jotee ñu parrainage jomaay. am na koo xamante ni mi ngi communiqué li ci war. am na koo xam ne mi ngi doon wàcc ci terrain bi di naan lacrymogène am na koo xamante ni mi ngi doon ànd ak Ousmane Sonko di garde rapproché mhm. am na koo xamante ni fu ñu jëmaan mooy euh, ñi nga xam ne mooy GPS yi nekkoon ci région yi mhm. parce que ñun bi ñu demee ci chemin de libération fekk nañ patriotes yoo xam ne ñu ngi ci région yi ñoo gën a déterminé kon tey ku ne mën nga féliciter sa morom waaw ñi ñàkk seen bakkan ñu ngi jaale seeni mbokk am nañ mérite ñi ci tëddoon ci kaso bi mhm. parce que man ak ni dof conférence de presse bi ñu doon def ak waa FRAPP li ma waxoon mooy waruñu baisser les bras parce que waruñu wor ñi tëdd ci kaso bi. ñun ñi des ci biti ñoo war a continuer xeex bi. ndax projet bi relais la. ku daanu dangay ngay sa morom day jël relais bi continuer. président Ousmane ko bi mu daanoo Diomaye dafa jël relais bi continuer ñun ñii nii ñeneen ñi daanu woon ci kaso yi ñun ñoo jël relais bi continuer kon ku ne yaa ngi félicité sa morom di ñaan yàlla lépp lu ñuy ñaan ci projet bi muy xéewal muy yokkute Sénégal mel ni dubaay Sénégal mel ni États-Unis yàlla na ñu ko yàlla defal ba ñu fàtte sax li fi jaaroon si kàttanu yàlla ak baaxam Jéeri Cissé sa mbokk Saalum Saalum la dañuy def ay gàmmu le 14 avril imam Maay Cissé bu taxawee fi imaam Assane Cissé tey moo koy waxtaanee. ndeysaan invité nañ ci ñëpp. waa jéeri ñu ngi ñu ngi kontaan ci loolu bu baax yow sama mbokku Saalum Saalum nga. Saalum lu mu wootee ñun ñoo ngi ci biir. kon ñu ngi si woo ñëpp di si woo waa saalum yëpp di si woo waa Ndakaaru ak patriotes yi waaw yàlla nuñ ci yàlla yóbbu ak jàmm yàlla def ci réussite total incha allah jaajëf jéeri